am na koo xam ne dafa dégg président mu ne ko dama bëgg ñu joŋante ci ay kàddu mais mu fàtte ni réewu démocratie yu mag yépp pour nga joŋanteeg président sortant il faut nga yóbbu ko deuxième tour ah comme na xewoon na Sénégalais yi bëgg leen gëmloo. bi muy ñëw di présenté wu en 2012 moom moo nar a nekk quatrième président dafa bëgg a gëmloo aussi sénégalais yi tey que moom mooy dem deuxième tour bu deuxième tour amee moom mooy dem ak président Macky Sall il est en train d' anticiper dafay dox ci bopp nit ñi dafay dox ci xel nit ñi mais nag il faut mu comprendre pour nga yóbbu président de la république Macky Sall ku mel ni Macky Sall second tour il faut que ce électorat justifie. Vous nous savez, il Idrissa que dafa jógee ci 14 danti 7 en 2012 Vous faites qu'un thème arithmétique bi dañu respecté ren en 2019 3,5 mais là, vous am 3,5 warul xaar di débat ak président de la République Mais comprendre comprendre les joueur il ne sera pas au second tour parce qu'il n'y aura pas de second tour. Il ne sera pas un adversaire de débat avec le président. Si vous voulez débattre vous ah de vous. débattre ak Vous débattre ah Mandé, de bu débattre avec moi. parce que qui muy président de la république c'est mon musul président de la république doonte bëgg na ko waaye nag balaa ngay accéder ci catégorie yu mag yi da ngay jaar ci catégorie yu ndaw yi ah comme jag jéggiwul catégorie yu ndaw yi séentu wuñ ko muy jàll ci catégorie yu donc je def dis, ba ñu génn élection 2019 pour Mouham Bopop.